kese gu jaar yoon ci biir secteur d'activité économique yëpp ak tamit respecté normes yi fi ci Sénégal nag fële ca division bu météorologie nag daanaka acteurs yi am nañ équipement yëpp bi war ngir rek ñu mën a wéyal seen liggéey waaye nag foofu rek ñu jéem a ànd ak xar yees yi ngir gën a yokk seen xam-xam. am nañ ko ci ay jumtukaay moom la ñuy jëriñoo ba nga xam ne tey ci wàllu météorologie lépp lu ñuy lu peese wala loo xam ne dañ koy natt. yor nañ tey ay yoo xam ne dinañ ci liggéey ba mun ci am ndam yuñ ci bëgg léegi nag liñ euh, koy waxee rek du dara du doy donc loolu moo tax dañuy bëgg agent yi ñu gën ci dugg ci jàng bi bëgg nañ tam dugg saytu tam am yeneen équipement yoo xam ne day ànd ak jamono pour ñu gën a mën a yaatal yeesal liggéey Sénégal nag dugg ci cadre communautaire bu waa loolee nag li ko tax a jóg mooy yëkkati urologie ci biir commerce mondial bi lee Covid bi jaar na fii guerre Ukraine ba nga xam ne distribution bi au niveau mondial le commerce est perturbé leen gis ne pour jot blé bi dañu naan nañu tëj mer noire bi ñu ubbi 7 jours gars yi jàll waaye bu jàllee ñu ne Égypte lañ koy wàcce nit ñi war a dayuwaat ba foofu mais loolu yëpp bu amee nguur yi dañuy waxtaan seen biir bu ñu waxtaanee ci la ñuy am ay pexe yoo xam ne diggante réew ak réew wala diggante ñaari communauté ñu mën a ubbi ay yoon ba nga xam ne dañu naan ah réew yu mel ni Sénégal wala Mali wala ñeneen xëy na ñoom lii la ñuy gën a dundee dañ ci am jafe a wax ak yooyu rek maa doon wax nga xam ne suñuy. ngir rek soutenir système bu. wàllum lekk bi ci àdduna wërngal këpp nekk nag thème bi ñu jagleel at bi ngir rekk yombal coopération ci diggante état yi ginnaaw crise covid 19 bi fi jaar bi nga xamante ne ni am na impact ci commerce international bi